Mouhalim info ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax di leen siyaar di tuuti 39 xabaar nga ni bu jàmp Aminata nekkatul député ca assemblée nationale xabaar la boo xam ne ñoom ñoo ko joxe tegi suba ñu woote woon li nga moo di réunion d'urgence fële ca bureau bu assemblée nationale ñu watoon xabaar bi nag gisoon nañu ko doon bàyyi xel lan moo waral woote gi doon nañ ko topp naka ko daal moom dafa génn ci parti bi nga xam ne ca nekkoon loolu nag moo waral ñu daal di koy daal tegg ci bopp fi nga xam ne moo di ah, assemblée nationale kon daal bureau assemblée nationale kon ñoom ñoo dugal jël dogalub teg gi Aminata Touré député ca assemblée nationale décision la boo xam ne bu illégal la boo xam itam dina indi nag ay commentaires yu bare bare bare ci réew mi kaddu la xam ne waa Walfadjri ñoom ñoo ko wax kaddu kon jàpp leen mi ngi noonu Aminata Touré nangu nañ ndombal tap tànk député bi xam ne amoon na ko ci assemblée ñu xool nag lan mooy doon réaction